cëram la moo ko moom waaw te fa tabarakallahu ndigal bu wér la ci joxe boole nu ko nun ñëpp li mu waxoon ni ku ma feeñal yaa ma tooñ te ku ma tooñ feeñal ma waaw ku ma yaa ma tooñ te ku ma tooñ feeñal ma waaw boppam doy na ko kilifaam doy ndigalam doy ko ba bëggul ku ko xam moo tax ku ko feeñal yaa ko tooñ waaye ku ko tooñ feeñal ko ndax boo ko tooñee mu jëfandikoo waaw te bu jëfandikoo feeñ dinañu xam ni kii moom waaw uh-huh. nee na yoor yooru alxames Alxaaj Malik wooma ni ma mbir mii seeni boroom d'accord nañu ci ma jox la ko joxuma la ko dama ko seede bu ma ko doon joxe jox ko mag ñi ànd ak man ba ma tolluwul nen waaw waaye seeni boroom nag nee ñu yaa leen ci gënal joxuma la ko nag dama ko seede ma di la yëgal ni sa njaambur gii nag jeex na bëccëgu tey nee na ma ni ko ci sart kenn bañ ma xam ba ba ma fiy jóge mu ni ko bu yombee dinga ko am waaw bu yombee dinga ko am waxin la ah mooy yombul nag waaw mooy yombul nag waaw